waaye ku gisati euh, jataay bi rawatina pàkk bii nga xamante ni tey jii fi la ñu toogati xam ne ñi ngi ci événement bi nga xamante ni kenn ku nekk xam na ne bu waxtu wi jotee le 21 septembre bu jotee rek fépp fu ap murit nekk rek moo xam ci réew mi ñu nekk la muy Sénégal wala lu génn réew mi saxeel dina dem ci kuréel gi nga xamante ni mooy kuréelug ñaari làkk yi nga xamante ni ñi ngi fii ci Ndakaaru ànd koog bépp murit boo xamante ni it yaa ngi fii ci Ndakaaru ngir di ko fi dundal dundal gu am solo goo xamante ni dara dara dara sababu ko lu dul fàttaliku lenn ci jëfi Seexuna Ahmadul Xadim ji nga xamante ni maanaam dafa jotoon àdduna sëkk àdduna sépp di ko màggal te xam ne bis bii tey lépp loo xamante ni am nañu ko tey mën nañu ci bis bii lañu ko suñu borom rafaatalee waaye nag ba tey ñu toog ak kenn di wéyjur di lépp muy Serigne Babacar Mbaye mu yor ci lépp loo xamante ni maanaam jëm na ci wàllu organisation màggal gi nga xamante ni mooy màggalu julli géej gi fàttaliku ko julli géej gi fii ci jàmmalaay ah, organisation bi nga xamante ni nag suñu borom def na ne mu yor ko mu doon lu jafe loo xamante ni ku fi ñëw ba gis euh, bayaal bi ni nga xamante ni noonu lañ ko organiser ci tefes gi ak lépp loo xamante ni mën nañ ne li wër euh, fii ñu nekk la rek di nga xamante ni kuréel gi kat liggéey bi liggéey bu rëy la boo xamante ni du ay caaxaan waaye xam naa waxtu wi tënk na te xat na lool waaye du ñàkk ay kaddu yoo xamante ni it day bàyyikoo ci moom ngir bokk yi nga xamante ni ñoo ñuy topp te rawatina ci événement bi nga xamante ni mi am euh, fii ci jàmmalay

jataay bi nga xamante ni naka jekk at mu yàlla sàkk yéen a ngi koy taxaw ren ji ñi ngi ci biir uh, wàccaay wi ñuy mel ni ci kanam tuuti ñi ngi xaar sëriñ bi mu ñëw ñu def uh, li nga xamante mooy julli gi ak cérémonie bi nga xamante ni at mu yàlla sàkk nit ñi dinañ ci jël ay tomb yoo xamante ni tomb yu am solo ma yemoo leen rek ci li nga xamante ni dundal li nga xamante ni mooy julli gi ay message yu fiy jàlle yoo xamante ni ku fi ñëw rek ni nga ko fiy jële bu baax a baax a baax a baax liggéey bi yokkuwaat bu baax a baax a baax sëñ Babacar mu mel ni am na ay wàccaay yu am solo yoo xamante ni waajal ngeen jërëjëf sama sëriñ salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bu ñu santee sunu borom tabaraka wa taala tey julli ci seydina muhammad rasulullahi salallahu alayhi wa ñu ngi sant bu baax sunu yaakaari tey ak ëllëg di cheikhul xadim xadimal mustawa di ñaan te ñaal ki toogal la bi tey di cheikh muntaxa ibnu cheikh mahmoud bachir suñu borom dala ko fee yàggal lool te wéral ko ba lépp luy bëggam ak yéeneem yàlla defal ko ko na mu ko bëggee di ko ñaanal bépp njabootu Cheikhul Khadim waaye di ko ñaanal bépp kilifa dina bu ne ci islaam yaag njaga yabote suñu borom dool leen taxaw ba lay seenu bëgg boo liggéey mooy teer boo liggéey fi kan Sayyidina Musaa alayhi salaam yàlla defal leen ko ñuy santaat yàlla bu baax a baax a baax ci laaj bi wax nga dëgg suñu borom mooy def lu jot lu ne yàlla wàcce ko ci xel alxuraan ko la ñu ko jàngale wa tilkal ayyaamu yudawwiluhaa bayna naas alxuraan wax mbir mu a day wëndeelu di yegg si yàlla dafa mel ni bi mu bindee àdduna koo taxañ ni sër ni njaago way def sër bu ko ràbbalee waxtu wi nag day xëccub sor rek yooyu xewoon fekk démb la ko suñu borom sant waxoon ca azal ba loolu mën a ne loolu nag mu mel ni bi mu jotee yàllaa ko wàcc ci xel xel ya ma ko wàcc nag kenn ku ci ne di murit saadiq sa baay liggéey loon sëriñ ba mu gërëm ko muy ku mel ni Mouhamadou Nazir Touré mi njëkk nekk président bi muy ku mel ni Serigne Baba Guèye mi toppoon ci moom doon président bi euh, ak Cheikh Ibrahima Mbacke mi nga xamante bi bañ na ko Mbacke la sant surtout Serigne Touba la ak sëñ Bass Diop Samba Xara Daam nga xamante bi sëñ Samba Xara Daam Diop ku nekk ko xam ci yoonu mu digganteem ak Cheikhul Khadim loola nag tax na ba bi ñu ko waxtaanee ba mbir mi rëy ñu ne di kat war nañ koo taxawal kat ñu ne waaw waaw di ko waxtaanee far nu noppee seen waxtaan noppeeguñu sëñ Muntaxa Njaay ak si mii tey xalif général des Mourides ñu ne ko ñu dem lañ fi doon waxtaanee mu ne leen li ka am na solo ñu ne ko ah waaye nag faaw ñu dem li yëgal ko sëñ ma ne leen maay doon seen ndaw ci sëñ Saliou maa leen koy dàggul sëñ Muntaxa mooy ndaw li jóg fii dem ci sëriñ saaliw waxtaan ceeg moom sëriñ bi jox ko ci ndigal ne ko doxal naa la sama digganteeg ñoom loolu nag bi ko sëñ Murtala déggee mu Cheikhul Khadim dafa ne maay doon élimaanu kuréel gi at mu njëkk bi 95 bi ñu ko njëkkee def da ko fekk libi mu yebal sëriñ Saliou Mbacke mu sëriñ Modou Moustapha sëñ Saliou ambassadeur mu jiite ko 96 mu ñëw jiital ko boppam boobu ba ba bi mu fiy jógee ku fi jiite moo la yebal sëñ Ibrahima jiite na fi sëñ Muntaxa mii jiite na ko ay yoon sëñ Maam Mor Mbàkke moom boosam jiite na ko fi ba sëñ Basiiru mu sëñ Baara jiite na ko fi kon liggéey bi noonu la demee woon noonu la taxawoo woon muy loo xamante bi euh, noonu la moom mu Mourtada defoon liggéey bi rek moo ko desoon ci fu muy ñëw ci Sénégal dana génn bitim réew de waaye Sénégal dootul woon dem fenn fenn fu dul liggéey ju liggéey gi bu jotee waxuma ñëw waaye da daan fanaan si ci barab ci dal bi bu euh, ëllëgee ñu ànd koog moom soxna may bi mu ko yëgee dafa ne lii ku ko jiite ñu ne ko soxna Soodu Xuma da lañ jël jigéen mu ne da topp ci man maay ki jiite jigéen ñi kon liggéey bu tolloo foo xamante bi ñetti doomi sëñ Bàmba ko seq muy sëriñ Saali mi yoroon baatam ci boobu jamono ak Cheikh Modou Mourtada mi iliman ji ak soxna may ma jiite jigéen ña bu ñu fabee seen doom jii ñu gërëm te wóolu ko muy Cheikh Muntaxa ne ko yaay jëwriñ ja loolee dal na xel moo tax it bi ñu sëriñ Saliou ne sant leen yàlla ndax sëriñ Tuubaa nangu na seen liggéey bi du woon lu ñu bett ndax ñi séq liggéey bee tax ndax ñooñu la si yàlla nangul yonent bi nangul leen lislaam nangul leen sëriñ Bàmba nangul leen muy njabootam googu moo tax nangul ko faaw mu jaar foofa ca ñoom mën a yegg si jun moo tax lool nag ñu ngi koy dox ba tey di ñaar fukki ak ñeent ñu koy waajal te waajaloon ko ñetti at kon kuréel gi boo ko xoolee bi mu juddoo mat na ñaar fukki at ak juróom-ñaar léegi waaw te màggal nañ ko